mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci bilimametti.com di leen remercier comme à chaque fois ci topp bi ngeen ñu topp ñu ñëw génn ci information bi dégg ngeen fan yëpp ñuy wax bébé bi nga xam ne moom lañ moom mooy Kër Massar depuis samedi ñëpp ñi ngi koy waxtaanee ki moom mooy yaayam jaaxle woon torop waaye ñi ngi ne ñoo nekk Seneweb ñuy wax ne bébé bi daal dinañ koy gis daal dinañ koy gis fële nga xam ne moom mooy yëmbal loolu mooy information bi waa Seneweb joxe selon ñi nga xam ne ñoom ñooy waa RFM nee nañ police mi ngi continuer di def enquête parce que dafa bëgg a xam kan moo daal di def jëf ñu ñaaw njooju maanaam kan moo sàccoon ki nga xam ne moom mooy bébé boobu fa li nga xam ne moom mooy hôpital bu Kër Massar kon nag ñu mën a xam ne ki nga xam ne moom mooy bébé bi ñu sàccoon fa li nga xam ne moom mooy Kër Massar daal dinañ nga xam ne moom mooy yëmbal ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp limametti point com ngir information yi cloche de notification bu leen ko fàtte Vous êtes sur l'imamiti.com, l'actualité des stars, people, divertissement et fait divers au Sénégal et en Afrique. Vous êtes sur l'imamiti.com, l'actualité des stars, people, divertissement et faits divers au Sénégal et en Afrique.